dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar wi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé ci wàllum xarala gi jaawo jàllo moo ñu fa féete mbokk yi ginnaaw buñ sante yàlla buur bi tabaraka wa taala julli si yonent bi sallallahu alayhi wa ñu bokk sant yàlla ci xéewal bam ñu xéwalal ñu fekkee weneen bés bu bees te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegtal ñu saa yi ñu yàlla wërsëgale ba ñu dund fekkee beneen bés yu bees yi bésu àddina yi kon lañu war mooy ñu sant ko ngir xéwal bam ñu xéwalal mu dogal si ñun nelaw bi nga xamante ne daf ñu ko jagleel ngir ñu di si mën a dalloo kon bu ñu yàlla wërsëgalee ñu dallu ci nelaw bi nga xamante ne ku moom amul kenn ku ñu ko fi andil te moom mi ñu ko fi andil daf ñu ko andil ngir ñu di si dalloo moo tax mu baaxee ñu si téere bu mag bi di alquraanul karim mu di ñu wax ci suratu naba wa jaalna nawmakum subaatan man yàlla maa leen defal nelaw mu nekk dallukaay ci ngeen di dalloo kon dallukaay woowu di nelaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee nañu képp ku yàlla yombalal ba nga nelaw hmm, boo yeewoo dafa am li nga war a def ndegem yàlla dogalul ci yow ñàkk nelaw ba nga xamante ne dangay dem jëli garabu nelaw kon boo yeewoo ci sa nelaw boobu yàlla xiiwalal la danga ko war a sant fu ne nii am na ñoo xamante ne bala ñuy nelaw il faut ñu am la ñuy naan fu ne nii am na ñoo xamante ne balaa ñuy nelaw il ñu am la ñuy ne nii am na ñoo xamante ne bala ñuy nelaw il mu am lañu nekke walla lañu la melaw ndegem yàlla àttewul loolu ci yow boo bëggee nelaw dangay jàng sa ayatul kursi jàng sa fatiha ak falaq ak naasi jàng azkaaru nawm nga daldi di ci nelaw kon jamono bu la yàlla wërsëgalee mu delloo la sa ruux boo yeewoo danga ko war a sant cant boobu noonu nag mooy alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur mboolem xeetu cant yi ñeel nañu yàlla buur bi nga xamante ne moo dogal ci man dee bu ndaw te mooy nelaw gannaaw bum si noppee mu daldi ma delloo sama ruux te ci moom yàlla lañuy dellu keroog bu ñu tàqale ko dund àddina si ginnaaw bu ñu suuboo ci nelaw bu màgg bi ci yàlla lañuy ñuy dem ximbali ko te mooy dee kon yal nañu yàlla may fan bu gudd ànd ak wér gu yaram fekk ak tal yal nañu ko yàlla boole defal amiin yaa rabbal aalamiin looloo tax boroom xam-xam su mag di xasanul basri rahimahullahu taala rahmatan waasia mu daldi la baaxee yow jullit bi mu ne la ibnu aadam innama anta ayyaamun kullama dahaba yowmun zahaba baaduk xasanul basri nee na doomu aadama bi de lu ko fi tax a nekk lu ko fi tax a bàyyi mooy bés àddina yay dem di ñëw bésu àddina yamuy dund looloo ko fi tax a nekk looloo ko fi tax a bàyyi ba tax na doomu aadama woobu dafa war a bàyyi xelam ne bépp bés ba mu dund ba bés boobu jàll dem ah xamal ne bés boobu dootul delsi te bu mu doon dem nag am na lu mu yóbbaale ci sa dund moo tax mu ne ibnu aadama yow doomu aadama bi innama ay ayyamun yow bisi àddina ya ngay dund moo la fi tax a nekk ba tax na danga war a bàyyi sa xel ne kullama dahaba yowmun bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ne dahaba ko am na lu deñ ci sa dundin loolu deñ ci sa dundin boo bëggee mu am lu am importance la ma yóbbaale boo bëggee bés boobu jaar jàll ci sa dund bi mu am lu am njariñ la mu yóbbaale nañ leen bokk déglu waxtaanu fajar bii di jaar fii ci réew mi FM 97.5 la suñu yonent bi baaxee askan bi ngir ñu war ko wara mëna mën bàyyi xel ci xadiisu uqbata bun amir radiyallahu an xadiis bi saxaabi bu mag di uqbata bun amir radiallahu anhu moo ñu ko baaxee moo tax xadis baa ngi tàmbalee an uqbata bun amir radiallahu an anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal kullu mri'in fi dilli sadaqatihi xatta yuquda bayna annaas xadiisu saxiix axrajahu albani fi saxiix jaamia mbokk yi yan jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ki yàlla yónni ci xeet bi di ar rasulul mustapha alayhi afdalu salaatu wa azka taslima moo ñu baaxee nañu ci xadiisu uqbata bun aamir di saxaabi bu mag mu ne ñu naka suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee ne ñu kulli mri'in bépp nit wala képp koo xamante ne jaamu yàlla la bépp jaamu yàlla képp ci nit ñi mbooleem seen kenn ku nekk ci nit ñi de bés fi fii sadaqatihi dinañ ko tàbbil ci keru sarax yam doon saraxe xatta yuqudaa bayna naas ba keroog yalla di àtte ci diggante jaami mbokk yi ñu war a mën a déggee maanaa xadis bi maanaa yu am solo sallallahu alayhi wa sallam xadis yu gàtt yi dañoo bari solo lool jàng ko wéy di jàll te taxawuloo settantal ko seetlu ko ëpp na ñàkk kaa settantal ëpp na sallallahu alayhi wa moom mi yàlla yenkeewal kaddu yu tënku baatu yu gàtt waaye boo ko doon càmbar fii ngay yend nar ngaa jël sa journée bi yëpp sa bés bi yépp di géem càmbar benn hadis bu gàtt boo xamante ne ñaari baat la wala ñetti baat wala quelques phrases nga jël sa temps bi yëpp consacré ko ci loole doo ko mun a peeg sallallahu alayhi wa la yàlla may li ni mel yal nañu ko yàlla feel moo ñu ne kulli mri'in bépp nit kulli mri'in kenn ku nekk ci yéen kulli mri'in kenn ku nekk ci nit ñi bés fi fii dilli yi yàlla da koy dugal ci keru sarax yam doon sarax fii ci àddina bekañ hatta yuquda bayna naas bi keroog yalla di àtte diggante jaami mbokk yi ñu géema xool maana xadis bi andil ko ay taaliqaat géem koo faram-fàcce géem koo taawi tuuti donte lottu nañu ko def ak waxtu bu gàtt biñ ñu cërale nii yonent bi sallallahu alayhi wa si xadisu uqbata bin amir nee na kulli mri'in képp ku nekk ci yéen góor ñi kulli mri'in képp ku nekk ci yéen ci soxna yi kulli mri'in képp ku nekk ci yéen ci mag yi kulli mri'in képp ku nekk ci yéen ci ndaw yi kulli mri'in képp ku nekk ci yéen ci ñi yàlla jox koom-koom kulli mri'in mboolem seen nañ leen bokk déglu la ñu yonent bi bëgg a wax sallallahu alayhi wa sallam ku limre in détail ya ñu détail nii yëpp kenn ku nekk ci yéen yonent bi nee na fii dilli sadaqatihi dinañ ko tàbbil ci ron keru sarax bam doon sarax fi suñu yaay ju ak suñu woyjur ju baax ñoo xamante ne dañuy togg ñam ju doy yóbbul ko waa jàkka ji doxandiim yay ñëw ci jàkka ji seen loxo matut seen ginnaaw dikkandoor ba ñu dikkaaleel ci koñ bi xam nañ ne ki jombale na boppam di laaj waaye ñu gis situation chaque fin ñu defal ko achat rafetaillement boo xamante ne da koy yóbbu jusqu'au fin de mois prochain sa sarax soosu ngay def yow fonctionnaire bi yow mi koy defal mbokk bu jege bi yow mi koy defal dikkandoor bi yow mi koy defal waa jàkka ji waaye yow mi koy defal way niw ju doole ji yonent bi nee na kattan kem kattan sarax bi nu mu tollu ëllëg bés penc dañ la koy soppil mu doon benn ker goo xamante ne fa ngay toog moo ne képp ku bëgg yàlla defal la ker keroog bés penc yawma laa dillu illaa dilluhu keroog bés penc mu doon bés boo xamante ne amul benn ker luy keral nit ki ci taxawaay boobu lu dul keru yàlla à keru yàlla nag foofu dafa am ña fa yàlla di tàbbil mooy almutahaabina li wajhillah ñoo xamante ne dañuy soppante ngir yàlla ñooñu la yàlla di woo ne ana ñu soppante ci àddina ngir man yàlla dara taxul ñu soppante ku sama jëmm ji kon kaay leen ma dugal leen sama termine bi nga xamante ne bokkul ak terminu àddina yi ñu miin waaw terminu àdduna yi dañ koy installé ñu nekk fa ab diir ñu daal di éliminer termine bi ndax waxtu yañ fa war a nekk waxtu woowu bu jeexee dañuy génn termine bi su ko defee dañuy daal di éliminer termine boobu kon turminu yàlla keroog bés penc bokkul ak suñu turminu àddina yi ñu miin kon képp ku bëgg yàlla tegal la turmin bu toll ni turminu yàlla ëllëg bés penc mu nekk kër goo xamante ne kenn mënu ko imaginer nanga déglu waxtaanu fajar bii di jaar fii ci réew Rewmi FM 97.5 amaana ñu àndandoor bokk taataan fi lañuy ñuy njëriñ suñu àddina ëllëg bés penc yàlla fay ñu ko incha allah moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa ne kenn ku nekk ci yenn moo xam góor la wala jigéen kenn ku nekk ci yenn moo xam mag la walla di xale kenn ku nekk ci yéen moo xam ki yàlla jox koom-koom la mbooleem seen yéen ñëpp laa wax keroog bés pénc yàlla dina tàbbil kenn ku nekk ci yéen ci ker bi nga xamante ne loolu la doon saraxe fii sarax ya nga doon sarax dinañ ko soppi mu doon ker ñu tàbbil la ci ker googe ndegem keroog bés pénc saraxu doomu aadama yam doon sarax fii ci àddina moom lañ koy soppil mu doon ker kon nañ leen xoolaat suñu bopp nañ leen xoolaat la ñuy saraxe boo saraxee lu tuuti keroog bés pénc buñ la defaree kër gi nga xamante ne matu la dara bul bulaame kenn te moo ne woon am nga lu ne gàññ la nga mën a saraxe waaye lu tax nga di si comp di si saraxe tuuti keroog ñu ngi nii keral nañ la kër goo xamante ne matu la dara kon bul balaame kenn na nga balaame sa bopp ndax dund nga fi moment yoo xamante ne war nga war a mën a saraxe la tax ñu keral la ker yu yaatu keroog bés pénc lu la ko teree def kon bàyyi ñu nopp may ñu nopp ñu waxtaan ak yow te waxtaanu fajar bii di jaar fii ci Rewmi FM 97.5 yàlla ñu yàlla may dégg ak topp amin ya rabbal alamin moo tax ki yàlla doyloo sallallahu alayhi wa mu ne ñu kenn ku nekk ci yenn ëllëg bés pénc dinañ ko keral kem talay kattan sarax bam doon saraxe fi ci àddina ba keroog yàlla di atte ci diggante jaamam yi kañ la yàlla di atte diggante jaamam yi yàlla suñu borom tabaaraka kañ lay àtte ci diggante jaamaami bu yu demee xool ci alqur'aan borom bi tabaaraka wa taala mu ngi won benn bésu alaaxira moo tolloog xamsiina alfa sana xamsiina alfa sana mimma juróom fukki junney at ci suñuy xayma bésu àddina yi moo tolloog benn fan ci alaxira juróom fukki junney at cinquante mille ans bu dee noonu lañ koy waxee cinquante mille ans mooy benn fanu alaxira bu dee cinquante mille ans mooy benn fanu alaxira kon nang lañ waaja préparer suñu bopp ker goo xamante ne loolu lañu yàlla di kerale ba keroog muy àtte doomu aadama yi lii ku du déglu nasiha bay jóge ko ci alquran ak njàngale yonent bi doo ko dégg fenn lii képp ku du déglu fàttali bay jóge ko ci alquran ak njàngale yonent bi dañ ne doo dégg lii fenn amul kenn ku la koy wax kon yow mi jël sa dégg yow mi jël sa rajo yow mi jël sa téléphone branché sa écouteur wala yow mi jël sa téléphone dañu topp ci suñu page Facebook wala page YouTube di déglu waxtaanu fajar bii di jaar fii ci Rewmi FM yal nañu yàlla boole defal dégg ak topp yal nañu yàlla may dégg ak topp ja'alana allahu wa iyyakum min allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana amin ya rabbal alamin mbokk yi bu fekkente ne benn bésu àlaaxira mooy cinquante mille na fii ci fanu àddina ya lim kon bu yonentu bi ne kenn ku nekk ci yéen kemtalaay kàttanu sarax ba nga doon saraxe moom lañ lay kerale keroog bés pénc wallahi lu ñu saraxe doyul lu ñu mun a saraxe dama ne doyul lii du lépp lii du histoire lii du cax lii du rencontration yañ leen di rencontrel déedéet ki ñu ko wax mooy ar rasulul mustapha alayhi afdalu salaatu wa aska taslima moom la yàlla buur bi tabaraka wa taala ne kii du wax ci bànneexu bakkenam kii du wax ci bànneexu bakkenam waaye lépp lu mu wax yàlla moo ko ko wax yo bu fekkente ne mooñu wax ne kulli mri'in kenn ku nekk ci yenn la wax nag fii zilli sadaqatihi dinañ ko keral ci kemtalay kàttan kem sarax yam doon sarax ci àddina hatta yuqudaa bayna naas ba keroog yàlla di atte jaami kon bu dee alquran daf ñu ne benn bésu àllaaxira mu ngi wuutu juróom fukki junney at ci àddina kon juróom fukki junney at ci àddina bu fekkee ne moo tombek benn fan ci alaxira te yonentu bi salaa sallam ñu kenn ku nekk ci yéen dinañ ko keral kéem sarax yam doon sarax fii ci àddina kon dama ne lu ñu saraxe doyul lu ñu saraxe doyul te waxtu saraxe su mag moo dëkk dëgmal nii du ñëw di tëbaski tëbaski bi nga xamante ne incha allah dinañ ci waxtaan ak mbokk yi ngineel ba fa yàlla dëxiñ surtout fukki fan yu njëkk yi nga xamante ne fa la ñuy waajal la nga xamante ne mooy waajtaay kon képp ku bëgg sarax bu nangu képp ku bëgg sarax bi yàlla di nangu événement bu mag a ngi nii di dëgmal di ñëw di iidul adhal kabir di tëbaski su mat tëbaski su mag nga xamante ne du yàgg ñu dugg ci kon nanga nga waajalal sa bopp yow mi yàlla baaxe nga woomle yow mi yàlla teg sa loxo la nga mën a dundee ba mu des na suuraale jaami yàlla ñoo xamante ne amuñu mënuñu na leen suuraale ndegem keroog bés pënc sarax ya nga doon saraxe fi ci àddina moom lañ lay soppil mu doon ker balay keral kon loo saraxe doyul ndax benn fan ca àllaaxira moo wuutu juróom fukki junney at ah at cinquante mille bu fekkee ne benn bés ca àllaaxira moo tollu juróom fukki junni at kon loo saraxe doyul sarax bi nu mu gën a bari cer yañ lay ceral keroog bés pénc mu gën a yaatu te keroog das di bés di da bés bu raglu keroog da bés bu raglu keroog da di bés bi nga xamante ne kenn du tal kenn yàlla daf ñu ko baamul ci alquran yowma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an nga wàcce ci suuf gis yowma yakunu naasu kal farashil mabsuus nga gën a wàcc yowma yaqumu naasu li rabbil alamin yooyu noonu yëpp xeetu màndarga yu raglu la mu làmbook bés pénc mu doon bés bi nga xamante ne yàlla ne yowma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an bés pénc da di bés bi nga xamante ne kenn du gàddul kenn dara kenn du gàddul kenn lenn mu tëjee aaya bi ne wal amru yawma izin lillah yàlla daal moo gàddul boppam mbiri yëpp kenn du gàddul kenn dara du malaka buy gàddul doomu aadama dara du yonentu buy gàddul doomu aadama dara waxtuma laa jinne waxtuma laa yeneen mbindaafoo ni ndax yàlla moo ñu ne ci njeexantalu aaya bi wal amru yawma idin lillah mbir yépp mboolem seen yàlla moo koy méngool boppam moo koy yoreel boppam nga gën a wàcc gis ne yawma yaqumu naasu li rabbil alamin bés penc mooy bés bi nga xamante ne ñépp ay ñëw teew taxaw ci kanamu borom bi taxaw la wax yawma yaqumu nnaasu la wax keroog da bés bi nga xamante ni ñëppay taxaw ci kanamu borom bi amul fauteuil amul njoowaan amul sées amul banc amul ta tabourier amul dara taxaw lañu wax taxaw yi taxaw bi bu dee yonent bi nee na kem sarax ya nga doon saraxe moom lañ lay couvrir ba jant bi du la laal jant du la sonal tàngooru jant bi du la laal kon dañ ne loo saraxe doyul beneen aaya bi borom bi tabaraka wa taala nee na yowma yakunu naasu kal farashil mabthus bés penc da di bés bi nga xamante ne doomu aadama yi dañuy màndi ci jaaxle ci tiitaange ba ñu mel ni ay lupa luppaa yuy naaw di mbëkkante di tëñëx tëñëx kenn du xam fuy fan ndegem préparé nga sa bopp fii ci àddina sarax ya nga jiitalal sa bopp ngir keroog mu doon ker bañ lay keral dañ nekkoon loo saraxe doyul kii dégg kàddu yi muy am sikki sàkk daa fekk ne xamoo daa fekk ni sa alwa guddul daa fekk ni seytaane mbaal na la fiir na la dugal na la ci keppaaram ba doo mën a dégg yenn raisonnement yi nga xamante ne mu ngi jóge ko ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bu dee yàlla baaxee na la nga gis hidaaya nga gis njub nga dégg raisonnement yay jógee ko ci alquran ak ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa doo def dara lu dul da nga naan sami'na wa ataana dégg nañu te dinañu jëfee lañu dégg la tukkee ko ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi te mu rootee ko ci alqur'an bi nga xamante ne moo bàyyee ko fa yalla buur bi tabaraka wa mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi nara a jébbal béréb bi ñay taxawee xabaar yi ca nasaraan ki ngeen àndaloon waxtaan bi mooy seen mbokk Ibrahima Dramé ki nekkoon ci wàllum xarala gi ba ngeen war a mën a jot kàddu yi mooy suñu xarit di jaawo jàllo lu jub ci kàddu gi ñu santee ko borom bi tabaraka wa ci déng ñu ngi koy jéggalu di jéggalu sëriñ si yëpp saa'iliina mawla jalla wa an yaj'alana min allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih a'immatana wa wulaata umurina allahumma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan maa dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin baraka allahu li walakum fi alqur'ani alazim wa nafa'ani allahu wa iyyakum bima fihi min alayati wa dhikri alhakim aqulu ma tasma'un wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa barakatuhu wa barakatuhu wa barakatuhu